dootuñu fee nangu bu mu jaar. mbokk internet la Roby international maa ngi leen nuyu leen naan dal leen ak bi conseil constitutionnel daal di rejeté candidature Ousmane Sonko maire Nona bu Fuuta di El Malick Ndiaye doon secrétaire communication bu Pastef moom nee na li nga xamante ne la conseil constitutionnel doxalee tegu feneen ndaxte ki nga xamante ne moom moo di euh, Ousmane Sonko euh, boo gisee ne amul li nga xamante moo di attestation daa fekk na rek lii di caisse de dépôt et de consignation moo ko bañ a joxe dossier bi ñu mel ba mun doon forcé dem jël li nga xamante ne moom moo di mel ba tax na nag moom El Malick Ndiaye jël na exemple ci nga xamante ne moom benn Mohamed Diop nga xamante moom itam nee na nee nañu en moom moo di ci fichier électoral moom daal di koy déposé fi nga xamante moom moo di ay parrainage rawati ki nga xamante rek moom moo di attestation bi ñu ko jox ci caisse de de consignation taxoon ba daal di li nga xamante moom moo di candidature ba tax na nag moom El Malick Ndiaye daal di sàkku ci li nga xamante ne moom moo di eh, caisse de dépôt et de directeur bi waaye tam ki nga xamante ne moom moo de l'intérieur ba directeur daf waaye tam ki nga xamante ne moom moo di directeur ñu daal di joxe askanu Sénégal explication leer jëmale ko rek ci li nga moom moo di euh, candidature bi que moom moo di euh, dossier bi nga xamante ba tax na nag moom moo El Malick Ndiaye daal di sàkku ci li nga ñoom ñoo jongante élection présidentielle euh, bu février 2024 mbokk li lañ indil tey mu tukkee ci li nga xamante moom moo di réaction bi nga xamante ne El euh, doon secrétaire bu communication bu ex Pastef bi nga xamante def na ko ginnaaw bi conseil constitutionnel daal di rejeté li nga xamante moo di dossier Ousmane Sonko joxe ma def ne Ousmane Sonko ci li nga xamante moom moo di ay documents ñu ko laaj amul ci li nga xamante moom moo di directeur euh, bu waaye rawatina ministère de l'intérieur ba directeur bi nga xamante moom moo di directeur CDC ñu joxe explication leer askanu Sénégal ci li nga xamante moom moo taxoon rek ñu daal di rejeté li nga xamante moom moo di euh, Sonko na leen toppal mbir mi lépp li nga xamante ne jëlee ko ci xibaar nañ dellu soit fii ne yekkee leen ko incha allah ma leen jox dig daje si yeneen jotaay xibaar leen naan bu leen fàtte daal di abonné